tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin kon mbokk yi ñu delluwaat ci waxtaan wi incha allah faqra bi ci topp muy tomb bi ci topp dañuy joxaat docteur Aly Guèye euh, mu traité ko waxoon nañ leen ko ci njëlbeen mu ngi war a traité comme dañoo ne al unfu inda shabab euh, violence bi nga xamante ne moom moo am ci ndaw ñi causes yi conséquences yi ak solution yi kon moom moom mooy wax ci loraange yi nga xamante ne moom moo ci nekk ak conséquence yi yan conséquence moo nekk bu fekkente ne li ñuy tuddee violence am na euh, comme ni ma leen ko waxee rek ñoom ñëpp ay yarkat lañ kon xam nañ li ñuy wax lan la kon ñu may leen nopp déglu bi idnillahi tabaraka wa taala kon fal yatafaddal mashkuran mahjuran bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, di sant di gërëm bu baax borom bi subhaanahu wa taala eh, di sant itam waa daarul istiqaama rawatina ndaw ya ca ñoom ci euh, mbir mu am solo mii ñu organiser euh, te boole ñu ci ñuy waxtaane nag thème boo xamante ne tem d'actualité la mooy wàllu violence réew mi foo toll yaa ngi dégg violence ci sport bi moo xam nawetaan yi la moo xam euh, bëre ba la ci politique bi yaa ngi cay dégg violence wàllu diine ji yaa ngi cay dégg violence mel ne mbir yu baree bari tey benn mbir rek lañ ko mën a régle benn yoon te mooy violence te loolu sax mooy violence physique bi waaye violence morale bi ak violence verbale bi ci réseaux sociaux yi kooku moom kenn xamut nu mu toll àgg ci benn degré boo xamante ne da nga yéemu sax ndax lii ci réew mii lay ame eh, nga xamante ne xame woon nañ leen eh, jàmm loolu nag kon jaadu na thème bu mel noonu ñu jël ko traité ko xool ba xam lan moo ko waral euh, xool itam yenn conséquences nefas la am ci nit ñi ak ci société bi waaye xool itam lan moo koy saafara euh, ñun li ñu ci sant mooy xool conséquences yooyu nga xamante ne euh, ñaare violence dina ko indi bu ñu waxee violence nag ci arab ñoom al unf lañ koy tuddee unf nag mooy dëdd la ar rifq safaanam moom mooy ar rifq mooy lewet mooy di jëfandikoo sa xel mooy teey mooy ànd ak ànd ak dal bañ a jëfandikoo doole ngir nag ñu xam euh, conséquence wala lor yi nga xam ne nekk na ci violence loolu texte yi ci boppam ñooñu ko wax alquran wax nañu ko sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa wax ñu ko ginnaaw ba gëstukat yi gëstu euh, ci wàllu yar ak ci wàllu psychologie ak yu aju ci yu mel noonu ñoo ñëpp gëstu nañ yooya ba génne ca yeneeni lor waaye lor yooyu yëpp ñu dajale boo xoolee texte yi nga xam ne dinañ leen ko tuddal dafa dajale lépp bokk na ci borom bi subhaanahu wa taala li mu wax ci alquran di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lan faddu min xawlik waaw ne ko yërmande ji yàlla def ci yow moo tax nga lewet lewet ci ñoom waaye boo nekkoon ku soxar ku jëfalikoo violence ku leen bëgg a forcer bu boobaa du dem doo mën a jàll kon conséquence bi njëkk ci violence bu dee ci milieu bii ñuy waxee nga xam ne ay wootekat ñoo fi nekk mooy ne violence dafay gàllankoor li nga xam ne mooy wootem nit ki moo xam violence bu man di doon nag bu ko wootekat bi di jëfandikoo dana ko gàllankoor ba message am ba mu bëgg a jàllale du ko du ko mën a du ko mën a jàllale ndegam yonent bi lañ lañ ne ko boo nekkoon ku violent kon sa message du jàll nit ña duñu toog di la déglu duñu la topp ca la leen di woo kon keneen ku moom waxi nopp kon daa moom na njëkk a jël ne euh, méthode bi mu war a jaar mooy ne dafa war a sori lépp luy nuru violence ci xeetu violence yi nga xam ne moo am yépp parce que am na koo xam ne xëy na du def violence physique waaye nag li muy def ci violence verbale bari na lool toujours mi ngi jéem loo xamante ne dafay lor day metti ki nga xamante ne moom la jàkkaar lool te kooka daf koo bëgg a xëcc indi ko ci leer gi indi ko ci njub gi nga xamante ne ci la nekk loolu nag euh, alquran wax nañu ne du violence moo koy joxe kon bokk na lu bari ci luy gàllankoor ci daawa bi mooy ne violence violence moo ko indi première conséquence bi kon moom mooy loolu borom bi subhanahu wa taala waxaat ak yonent bi sallallahu waxaat ci alquran di ñu nettali li mu waxoon yonent yàlla Muusa ak rakam ja Haaroon ne leen idhaba ila firawna innahu taga faquulaa lahu qawlan layyinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha neen dem leen ca firawna moo gën a yées nag ci nit ñi waaye bu leen demee bu leen ne ko yaa fi gën a bon buleen leen ne ko yow noonub yàlla bi yow ku yées ki yow ku bon ki déedéet wax leen ak moom wax ju teey bu leen jëfandikoo violence ànd leen ak dal wax ak moom ndax wax jooju du dal jooju ci la ñuy amee yaakaar ci ne yàlla mën naa def mu fàttaliku dellusiwaat siwaat euh, fàttaliku lu koy jariñ mu topp ko wala boog mu ragal lu koy lor mu moytandik ko teew loolu rek moom nga jublu ci ki ngay woo danga bëgg xëcc ko ci lu koy jariñ soril ko lu koy lu koy lor alquran nag nee na yoon ba nga cay jaar mooy faquulaa lahu qawlan layyinan te firawna la ñuy waxal te ñiy wax ak firawna ci tànneef yi lañ ay yonent yàlla lañ boole ci sax yonent yàlla Muusa bokkaat ci ulul azm maanaam kon ñi gën a baax ci nit ñi ñoo jàkkaarloog ñi gën a yées ci nit ñi alquran ne leen bu leen ko violenté def leen ak moom ndànk ngir ngeen mën koo mën koo xëcc mbokk yi kon loolu lenn la ci laayaat yi nga xamante ne day wane ne violence amul njariñ day baare li nga xamante ne moom mooy message bi nga xamante ne moom la nit ki bëgg a jàllale bu ñu ñëwee ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa dañuy gis ne suñu Aïcha radiyallahu anha wax nañu ne yahud yi dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko assalaamu aleykum maanaam yal na ngeen yal na ngeen dee mel ne assalaamu lañuy wax waaye dañu dagg làmba ne assalaamu aleykum boo ko déggee mel ne assalaamu aleykum la te fekk na mooy yal na ngeen dee au lieu mooy yal na ngeen am jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na li yahud yi wax xam na li yahud yi wax waaye dafa nekkoon ku ku dala dal suñu Aïcha nag nga xam ne moom ndaw la woon tey ñaare bu ñuy tudd violence mooy ndaw lañ cay gën a tudd tudd moom mu daldi mer daldi wax ne aleykum wa laanakumullah wa ghadiba allahu aleykum yal na ngeen dee yal na ngeen alku yal na ngeen torox yal na leen yàlla mere yonent bi sallallahu wa sallam ne ko mahlan ya Aïcha alayki bi rifq wa iyaaka wal unfa wal fuhsh wa iyaaka wal unfa wal fuhsh ne ko teel teel teel teel suñ suñ yaay dalal rek dalal bu la bu bu nit jëfandikoo violence rek nga nga ne yow itam violence nga koy nga koy faje bu nit dof dof lu nga ne ko maa la gën a dof fuuf bu boobaa yéen mujj ngeen yem léegi yow kay bu nit dee dof doflu yow niteel ci kanamam moo tax mu ne ko teel rek teel ba noppi nag ne ko àndal ak dal te moytandiku violence moytandiku itam kàddu gu ñaaw di génn sa gémmiñ waaw du caa génnee saa yu ñu la saagaa rek yow itam danga war a saaga saa yu nit ki waxee lu ñaaw rek yow itam da war a wax lu ñaaw nagam sañees na nit ki ñu tooñ ko wax ko lu bon mu delloo ko waaye nekkut la nga xamante ne moom mooy moom mooy lu gën su ñaay Aïcha ne ko yow yonent bi xanaa dangaa déggut li ñu wax mu ne ko ah kay sax dégg naa ko waaye yow xanaa déggoo li ma leen tontu dañ ne assalaamu aleykum ma ne leen wa aleykum ak yéen itam bu fekkente ne jàmm lañ doon ñaan baax na waaye bu fekkee ay lañ doon ñaan boobaa tuskare dal na leen ndax ñaanub yeneen bi seen kaw ñoom danañ ko nangu te ñoom liñ may ñaanal du ma dal maanaam lu bon lay jóge ci ñeneen ñi violence bay jóge ci ñeneen ñi du la taq fenn du la dal du la laal donc yow la réponse nag ba ngay joxe boo xamante ne dal la ak xel la boobaa dana am impact ca ña nga xamante ne ñoom nga koy ñoom nga koy delloo kon loolu leçon la bu am solo bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox suñ yaay Aïcha waaye joxaale ko xeet bi yépp lim ne ko iyaaki wal unfa wal fahsh moytandikul violence mooy kàddu gu ñaaw di génn ci sa ci sa ci sa làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci xadiisu jarir radiallahu anhu nga xamante ne dañ koo jox euh, euh, li ñuy tuddee jawaamiul kalim maanaam ci baat yu néew ci la lay tënkal loo xamante ne après ñi ñëw ginnaaw ay études études études lañ ciy def te résultat ba ñuy àgg mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon yont bi nee na man yuxrami rifqa yuxrami alxeer man yuxram al rifqa yuxram alxeer nee na ku ñu xañ lewet te ku ñu xañ lewet mooy kan mooy ki violent nee na boo nekkee ku violent xamal ne yow moom yiw xañ nañ la ko yiw yépp ci kem ni nga xam ne noonu nga euh, amee violence ci noonu ngay noonu lañ lay xañe aw aw yiw loolu lu sa violence gën a bari ñu lay gën a xañ aw yiw mën ngaa dem ba doo amati wenn yiw wal iyaazu billaah te ab jullit bu amatul yiw bu boobaa moom euh, mu jëm wal iyaazu billaah moom mooy safara kon euh, ki nga xamante ne yëg na ci boppam violence akub tàng na ko jéem a saafara jéem ko faj ndax kat doy na rek lu yonent bi wax ne ku ñu xañ ak lewet kooku xañ nañ la yiw wépp yonent bi sallallahu alayhi waxaat itam ci baat bu tënku ne ci xadiisu abi darda radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man utiya xazahu min alrifqi faqad utiya xazahu min alxeyr wa man xurima xazahu min alrifq xurima xazahu min alxeyr maanaam képp koo xamante ne yàlla may na la nga am chance ba ànd ak dal ànd ak teey nekkoo ku violent ah kooku yow am nga chance de am nga change bu baax a baax xamal ne yàlla may na la jikko ju rafet rafet yàlla may na la yiw bu baree bari yàlla may na la mbaax bu baree bari goo xamante ne nii xañ na ko ñeneen moo tax yont bi tegaat ca nag ne koo xamante ne nag moom amuloo change wu lewet danga nekk ku violent booy wax violence ngay waxe booy jëf violence ngay jëfee sa comportement lépp violence moo cay feeñ kooku day xamal ne moom xañ nañ la sa cër ci li nga xamante ne moom mooy yiw kon mbiri àdduna ak alaaxira yépp ñi ngi koy amee ci lewet kon safaan ba mooy liy xañ nit càkkutéefu àddunaam ak càkkutéefu alaaxiraam yépp moom mooy violence kon violence nekkut lu baax dafa léppam ay lor la léppam ay lor la ndax euh, kem ni nga nekkee li nga am ci violence loolu lañ lay xañ ci aw yiw kon te buñ la xañee aw yiw mooy ne kon lor rek moom moo cay moo cay topp boroom xam-xam yi bi ñuy euh, gëstoo xadis yooyu dañ ne Euh, fukki njariñ ak ñaar a ngi nii yoo xamante ne lewet am na ko njariñ buñ ci tudd rek jàppal ne lor la ci violence bi ci njëkk mooy nee nañ lewet day yóbbu nit ki aljanna kon violence safaan bala mooy ne day xëcc nit ki jëme ko safara euh, lewet day tegtale ngëm yàlla gu mat ak lislaam gu rafet kon safaan ba mooy violence moom lor jëmi indi mooy ngëm yàlla gu matadi ak lislaam joo xamante ne euh, dese naa rafet ñu ne itam lewet day tax yàlla bëgg la nit ñi bëgg na contraire ku violent kooku dana am mbañeelu yàlla am mbañeelu li nga xamante ne moom mooy doomu aadama yi naka noonu itam lewet day gën a tasaare soppante ak jàppalante solidarité ci diggante nit ñi violence nag day solilante nit ñi tàqalikoo lay indi seen biir xëccoo itam lay indi ci seen euh, biir naka noonu itam nee nañ lewet day tegtale ne jaam bi nit ku baax la ku rafet jikko la ki violent nag mooy ki nga xamante ne baaxut ba noppi itam euh, rafetut euh, ay jikko waaye itam société bi bu fekkente ne lewet daf tasaaroo ak jàmm ak yërëmante bu boobaa bañante ak xëccoo ak ŋaayoo dafay tasaaroo violence daf yomb lool safaan ba nag kon mooy bépp société boo xamante ne dem nañ ba seeni wuute amuñ benn façon buñ ko mën a régler lu dul violence bu boobaa société boobu moom xamal ne euh, ma nga jëm ci toroxtaange bi nga jëm ci euh, dellu dellu ginnaaw naka noonu itam euh, lawet lépp lu mu dugg loola rafet loolu jekk te loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax safaan ba nag mooy violence moom lépp lu mu dugg rek yàq na ko lépp lu mu dugg ñaawal moo xam violence la ci biir famille violence ci euh, diggante ñaari way dencante yi violence diggante borom kër ak njabootam violence entre kiy jàngale ak ki muy jàngal violence ba ci entre force de l'ordre yi ak ñeneen ña ñuy jàkkaarlool violence entre ñi jiite ak ña ñu jiite lépp lu mu dugg rek lu violence dugg rek yàq na ko wa ma daxala al unfu fi cheyin illa sha violence lépp lu mu dugg yàq ko loolu rek doy na ci lor joo xamante ne violence dina ko indi doy na nit ki moytandik ko kon lépp loo xam ne yaa nga cay sóobu ci sa mbiri àdduna ak sa mbiri àllaaxira boo bëggee mu am réussite boo bëggee mu jàll fexeel ba violence sori boo bëggee réussite yar gi nga yar sa njaboot boo bëggee réussite sa vie conjugale ak yeneen ak yeneen boo bëggee réussite njàngale ma ngay njàngale na nga ànd ak lewet te yi li nga xam ne moom mooy euh, violence ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne boroom xam-xam yi tudd nañ ko euh, lor yi nga xamante ne nag lor la yu feeñ yoo xamante ne moom ñiy gëstu ci wàllu violence yépp tudd nañ ko mbir yu baree bari la violence dafay indi ay blessure ay blessure ay euh, bopp yu yu ñu toj bët yu ñu toj tànk yoo xam ne dañ ko damm ak cër yu ñu dagg ak yeneen ak yeneen yoo xam violence moo ko indi tey barewaa na koo xamante ne mi ngi am handicap bu muy sooxaale te fekk na dañuy fàttaliku ne benn violence la jamono euh, nangam manifestation tel wala làmb wala euh, nawetaan tel moo ko indi loon violence nga xamante ne mi ngi koy sooxaale ca mu yàqal ko lu bëree bari nag ci wàllu wàllu dundam tey bariwaa na ci société bi ñoo xamante ne ay violence moo leen yóbbee lañu yóbbu te loolu sax mooy li gën a ndaw mais violence sax dafay yóbbu ci mort d'homme ay nit yoo xamante ne dañ cay ñàkkee seenu ruux te ñaare saa yu violence amee nga dégg ñu ne am na nit ku ca génn àdduna léeg am na ñenn ñe ñu ñu bari ñu ca génn àdduna ñoo ñu nekkoon ay père de famille wala ñu nekkoon ay yaakaari euh, famille ndax la plupart ñu bari bare ci ñoom ndaw ñi leen di doon ndax ndaw ñi buñ nekkul cause violence itam ñoom ñooy matt mi nga xam ne moom moom lañ koy moom lañ koy xàmme xàmme loolu moo tax kon conscientiser ndaw ndaw euh, ndaw ñi xamal leen euh, violence ak lor yi ci nekk nekk lu am solo loo xamante ne euh, lu ñu war a bàyyi xel la kon violence dina indi ay gaañu gaañu comme niñ ko tuddee. waaye même dina indi ay maladies chroniques yoo xamante ne violence yu nit ki euh, euh, euh, soobu moom moo ko moo ko yóbbee waaye itam ay trouble psychologique ay nit ñoo xamante ne dem nañ ba presque xaw a ko seen sago te boo seetee la leen ko yóbbee mooy violence boo xamante ne subir nañ ko violence boo xamante ne subir nañ ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dana di dal Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy subir ay violence ak toog di euh, paniquer stressé ak yo yeneen yu mel noonu ak dépression am sax ñoo xamante ne dinañ dem ba violence moo leen di yóbbee far ñu euh, xaru wal iyaazu billah jeexal seenu seenu dund ndax violence boo xam ne mënatuñ koo supporter moo xam violence physique la walla violence morale la ak bu ci man di doon violence boobu nag surtout ñi gën a féete ndaw ñooñu itam da leen di lor lu baree baree bare rawatina violence bi am ci jànguwaay fi nga xamante ne fa xale bay jànge tey bare na xale yoo xam ne seenum njàng yàqu na bàyyi nañ fañ doon jànge te dara warulu ko loo xamante ne violence bu ñu fa doon subir violence ba mën naa bañ a nekk sax bañ a jóge ci ña leen di jàngal mën naa bañ a jóge ca ña yilif jàngukaay ba waaye violence bu ñuy subir ci seeni moroom loolu rek mën naa tax ñu bàyyi njàng kon bokk na ci conséquence violence mooy ñu bëree baree bari ñoo xamante ne seenum njàng euh, dana ca jóge yàqu te itim dafay violence dafay gën a juraat violence xale bi nga xamante ne dañ koo violenté kooku itam am na mille chances moom itam mu nekk violent après bu bu bu bu bu màggee délinquance bi ngay gis fàq gi ngay gis noonu ay nit ñu euh, sori société bi euh, lu ci baree bari am na ci loo xam ne la ko waral mooy violence boo xamante ne subir nañ ko moo xam ci biir famille bi la moo xam ci euh, société bi lañ ko lañ ko subire ak yeneen yeneen conséquences yoo xamante ne dana ko am bu dee ci wàllu économie itam violence ci liy gën a delloo am réew ginnaaw ci la bokk xam ngeen ne tey Euh, ndaw ñi bu ñuy am bu violence amee lañuy njëkk a def mooy détruire lépp loo xamante ne lu ñu tabaxoon la da gis loo xamante ne ay milliards lañ ciy lañ ciy def mu war a jariñ génération bi war a jariñ génération future ya ci benn laps de temps benn fan wala ñaari fan ñu détruire lépp ñu war koo tàmbaliwaat à zéro te loolu dong du conséquence violence mais violence aussi conséquences économiques yi mooy day tax ba dépenses yi ñuy def ci wàll armement ak euh, recruter ay forces de l'ordre ak yeneen ak yeneen dañ koy gën a yokk xaalis bu baree bari moo cay def ci maintien de l'ordre te xaalis boobu mënoon naa dugg ci mbay ma mënoon naa dugg ci école ba mënoon naa dugg feneen ak feneen mais ci maintien de l'ordre lañ koy dugal waaye itam yamu ci violence itam day tax ba hôpitaux yi dañuy gën a déborder wàllu Euh, santé bi day gën a rëy chaque fois bu violence amee hôpitaux yi dañuy fees dell ñu war a faj ay blessé kii dañ ko war a opéré kii dañu war a dagg tànk bi kii da war a def nii kii ak léeg mu nekk coût bu mag itam boo xamante ne société bi ñoom ñoo koy gàdduwaat parce que coût yooyu yëpp xaalis bi du jógewaat fenn ci poosu nit ñi kese lay jóge bu ñu meree toj ay kaas ay ay kaar yàqte ay école euh, yàqte ay infrastructure yépp après société bi ñoom ñooy wëlbatikuwaat remboursé waat loolu lépp mu nekk coût bu metti boo xam ne dina leen tee ñu mën a avancé lañ waroon a def ci ay effort pour jëm ca kanam dañ koy def ci ay effort ci réparer loo xamante ne violence moo ko moo ko moo ko indi kon violence itam dafay euh, détruire li nga xam ne moom mooy euh, euh, économique ak itam même viol ñi ñi violent ak euh, délinquant yi ñooñu aussi dañuy coûter société bi lu baree bari ci war leen a entretenir ci maison d'arrêt yi ak euh, barab yi nga xamante ne fa lañ leen war a war a war a denc ak itam lu jëm ci wàllu justice bi loolu lépp ay coût yu mag a mag yoo xamante ne ay pertement la yoo xam ne la ko waral moom mooy euh, violence ak yeneeni conséquences yoo xamante ne violence am na ko kon daal mbokk yi li tënk waxu euh, violence lépp mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ne euh, lewet amul dara lu muy dugg lu dul mu rafetal ko euh, violence amul dara lu muy dugg lu mu ñaawal ñaawal boobu nag moom mooy lor yooyu yépp ku ci nekk ci yéen mën naa am ay lor yoo xam ne gisal nga ko sa bopp yoo xam ne violence moom moo ko moo ko indi kon loolu lañ ci bëggoon a tënk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi kon ñu ngi sant docteur Aly Guèye ci exposé bi mu def bu am solo ci conséquence wala loraange yi nga xamante ne dina juddu ci li nga xamante ne moom mooy violence euh, di leen fàttali mbokk yi amaan am na ñu ñëw léegi jotaay bi. jeunes yi nekk ci daarul istiqaama ñoom ñoo ko organisé daarul istiqaama nag euh, mbooloo moo xam ne jàng jàngale ak yar moom moo ko yitteel képp koo xam ne boo koo ci woon boo koo ci woon nag te nga nekk fii bëgg cee bokk am nay formulaire yu nekk fële ci mbokk ma la toog jigéen ñi tamit ñu ngi leen wax ne am na formulaire yu nekk foofu ci arab ak ci ak ci français kon li ci topp mooy ki ci war a def lu ñu tuddee taaliq taaliq nag mën ko waxee tekkiwul ne kii ñëw dafay wax ci Eh, ki doon wax li mu doon wax eh, di ko corriger walla leneen waaye amaana am na lu mu gis loo xam ne eh, ci wàll woowu amaana ki doon wax àggu ci nekkul ci ñàkk xam waaye ci ñàkk ci ni mu ko préparé ak yooyu moom mu indi ci loo xam ne dina ci yokk loolu rek lañuy lañ ci jublu kon ki war a ñëw mooy Ahmad Ba di Ibnu Rushd wala yatafaddal mashkura ko ci ñun duñ mën leen lu ci wax fadeeru Cheikh la am na yu bëri mu tudd ci loraane yi nga xam ne euh, violence da koy waral comme ni ko xamee violence euh, loraane yi dina dellu ci kii def violence ci boppam ñaareel bi dina dellu ci ki nga xam ne moom lañ violenté ñetteel bi day dellu ci société bi nga xam ne kooku ñi nga xam ne dañoo violent fa lañ dëkk ki nga xam ne mooy def violence bi loraange bi gën a mag bi nga xam ne moom mooy dellu ci moom comme ni ko docteur moo mooy ni moom koy xañ lu baax da koy xañ lu baax comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee bu ñu xoolee ki nga xam ne daa violent ci dundam daanaka day nekk ci njàkkare du nekk ci loo xam ne bànneex day jóge ci problème dem ci problème day jóge ci problème dem ci problème loolu noonu ñëpp seetlu nañ ko kon ñu xam ne violence ñaareel bi bi nga xam ne dañ ko violenté ki nga xam ne violence ci moom la dal euh, imma mu doon violence boo xam ne violence verbale ay wax la amaana xale boo xam ne xam ne wax mu jaar ci a tekkee ko ci wax amaana tamit ki nga xam ne bu fekkee violence euh, jëf la gis nañ ki ñu violenté ko mu am ay problème ci dundam euh, comme ni ko docteur waxee tànkam damm kii wax damm mu dem ba nga xam ne du amati confiance ci moom kon loolu day dellu ci violence bi nga xam ne dañ ko violencé euh, buñ delloo tam ci bi bi nga xam ne moom la dund violence ci société société bu demee ba doon violent société boobu day dellu ginnaaw day doon société bu dellu ginnaaw bu ñu xoolee société yi gën a dellu ginnaaw moom mooy société yi nga xam ne dañoo violent lu tax ndaxte liggéey dafay néew ndaxte insécurité dafay bari euh, heure yi ñu doon liggéey duñ ko liggéey heure yi ñu doon noppal duñ ko noppal euh, misaal bi gën a rëy mooy ñun ñi ñëpp ñu toog fii ñun ñëpp kenn ci ñun tey jii bëggul timis nekk ñu fii lu tax ndaxte am na loo xam ne dina am ci kanam séntu nañ ci violent ci am kon société bi nga xam ne dafa violent day dellu ginnaaw lu tax ndaxte li ñuy liggéey day néew li ñuy liggéey day néew ndax du am sécurité am na dëkk yoo xam ne heure bu la neex da ngay yeew dem liggéey waaye dafa am ay société yoo xam ne société yi violent ndax dañ lay tànnal heure bi ngay yeew dañ lay tànnal heure boo xam ne da ngay dem liggéey lu tax ndax société dafa violent dafa am insécurité société bi tamit violent li ñuy liggéey daa néew buñ ko liggéeyee tamit lu ñu am loo xam ne moo leen koy aaral comme ni ko docteur waxee day am benn manifestation bi am li am yëpp ñu yàq ko toj ay biis yàq ay kii am na ki ma doon waxal sànq dafa amoon dars boo xam ne daa li ko tee dem jàngale ndaxte ginnaaw timis la ginnaaw dafa am làmb looloo tax ñu àndi dars boobu ngëneel yi amoon ci dars boobu noonu yëpp ñu ñàkk ko nii ngir lan ngir lan moo tax ñu ñaata jëlee boobu noonu ngir violence bi nga xam ne ñu koy séntu ci lii. nee na ndaw mooy aar bi nga xam ne jamono wala or la ci doomu aadama bu nekk moment bi nga nekkee jeune aar boobu jamono or. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulaahi wa barakaatu. jazaakallaahu xayran. Oustaz Ahmad Ba ci taalak bu am solo boobu.